salaamaaleykum salaamaaleykum gars yi bëgg leen jaar leen jox leen seen wàccuwaay xëri la sa tub kocc bi naka talax-lax réew mi rakkam-rakkam dàjj dajj dajj Baye Bassirou Diomaye Diakhar Faye jeeg Baye Sonko mu sell mi ci feer play gars ku corrigé nag yaa xam ku corrigé yaa xam dama ne talax-lax réew mi dajj dajj Baye Sonko jeeg lay lay mi ci réew mi dañ ciy waslu ci fair play na ngeen def ak coono dama ni moment bi ñu toll Baye Ahmed Suzanne Camara menn wax dëgg yàlla ma nga paquetage ci faire pele ku corriger nag yaa xam. dañ ko yóbbu paquetage ca nungu siin te loolu nag am na lees cay ragal. lan cay ragal mooy yooyee ca camp pénal wala 100 mètres kutaal wala rëbës ay gan la ñuy bañ. parce que yow mal xuloo jël basar xëri la sëtub kocc bi man na kànja man na maafe moom sëtub kocc bi dama ni. Cheikh Niang mi nga xam ni bi ko bàyyi Ousmane Sonko mu sell ma wala bàyyi Bassirou Diomaye jaaxaar fay mu sell ma nomee ak léegi ñaari weer la toll gars yi kan mooy Cheikh Niang Cheikh ñaa mooy njiital ONAS na ngeen def ak coono ma ni Cheikh Niang mooy njiital ONAS gars yi bu leen fàtte ni moom Cheikh ñaa moomu moo wuutu woon Mamour Diallo foofee ca ONAS maanaam moo doon njiital ONAS maanaam DG na ma ko mën a waxee man xërisatub kocc bi bàyyi Cheikh ñaa moomu ci faire pele na kukuriser sa bopp bàyyi Cheikh ñaa moom la bàyyi Bassirou Diomaye Diakhar Faye joxoon poste ci faire pele nome ko mu jiite li nga xam ni moo di ONAS bàyyi Bassirou Diomaye Diakhar fay ma ko nome woon ci fair play ca ay décretam man na kànja mën na maafe folli na ko ci fair ñaari weer la def ca mandat ba talax-lax réew mi nag jaaxal nañu bari dajj dajj Baye Sonko ji may dégg ci rajo kankan ñu naan Ousmane Sonko kañ la nome bay dàq Baye Sonko ne woon na leen jub jubal jubbanti la woote ci fair ku ko man ànd ak moom ku ko mënul sa place do fa yag dama ni gay ñu bari ñi ngi xëccio poste biir passif manam di bëgg poste man de bëgguma ndax xamna naa la ma fekk jub jubal jubenta man dama dëng dama dëng ta bari na ci morom man soxlawuma xarisatu ko non soxlawuma de yeen ñi bëgg poste nak dem leen géré jub jubal mba kasso ba ci fer pelé Cheikh lan koy da bari deg na ci radio kank ak ñuni jot na sax jënd ndamar go xamni mi ngi tollu ci 80 millions a ah, du samay wax de du samay wax de ku corriger sa bop bay Cheikh nya deg na mom da tambali wona nos ta bay Sonko wote wul nos fama ndort na xawa ci ki saka tuti rek ni bay Cheikh mi yag bay Sonko nako ko ci fer pale ndax baleeg Baye Bassirou joma Diakhar Faye ga mu balé Macky Sall wax deug yalla bale googu mi ngi fi wul balé gi da bale bay Macky ba pare denc ko denc bale gi léegi gars yi man fa ma njorte ni bàyyi Bassirou Diomaye Diakhar fay wala bàyyi Sonko mii dina laaleeg Cheikh ñaa fa ma ko njorte yàgg na te ba ma koy xalaat du tey ndax bàyyi Ousmane Sonko dafa mas a daje ak Cheikh Niang dem seeti ko ca bërëbu liggéeykaayam interroger ko ci ay projet ak ay financement mais Ousmane Sonko ba mu laajee ki nga xam ni moo di Cheikh Niang la mu ko tontu dafa doy waar gaay yi gaay yi nañ déglu Ousmane Sonko ak bàyyi Cheikh Niang daal di ñëwaat.

<laughs> lëfa ngi ci lëfa ngi ci xaw nag ba xam dégg ngeen kàddu yi bu baax xam ndéet Ousmane Sonko daf ko posé ay question ci ay investissement yu benn projet mu lim fa ay millions ñu ni déetawaay ay jegeñaaleem yi nga xam ne ñoom la àndal ñu lim ay milliards kon lëfa ngi ci lëfa ngi ci Baye Ousmane Sonko nag ba mu paree ca loolu def ab discours am lii la wax Baye Cheikh Niang Mais j'accorde beaucoup de prix à ce que je dis. Et dès votre retour à Dakar, il faut que vous vous y mettiez et que vous nous envoyez rapidement un rapport détaillé sur l'exécution financière de ce projet. nous Sonko loolu la wax ni ko def tout ba projet bi li ngeen ci financé lépp lépp ngeen fexe def ben rapport envoyé ñuko ko dial job Diop Sangomar très rapidement et huit fait Nous bay Sonko naniko huit fait huit fait huit fait huit fait la ko wax. rapport bi na ma fekk dakaru rapport bobu ba mu dikkee wax deug yalla Baye Bassirou jomay jaxar fay da da di jël balega xamne Baye Cheikh ñaami lëfa ngi ci mom ci wazaayiran ak wa baatiman ku kurise xam kon pour yeen ñi nga xamni ni comprendre leen ni mu deme ka bi ni la deme ni la ka bi deme Baye Cheikh ñaa lëfa ngi ci mom Baye Bassirou jomay jaxar fay alliance Baye Sonko mu ku xam da jub jubal jubanti ak ku mën a doon nagan ah, ak ku mën a jige Bassirou Diomaye Faye ak ku mën a jige le premier ministre Ousmane Sonko li mu woote dañ koy dox mënoo ko ak koo mën a doon dañ lay rajee ci fair pale bale gi dencuñu ko xëri la sëtu kocc bi gars yi talax-lax réew ràkkam rakkam ji dajj dajj jeeg baay Bassirou Diomaye Diakhar fay ji dañuy ñëw ci bàyyi yirim neneen def ak coono bàyyi yirim sekk am nga jàmm defal ñaan defal ñaan ñu ubbi waxtaan wi bàyyi yirim mbaa kenn la defal ñaan ñaan bin murra bin kaab bin luway bin aalib bin fahr bin malik bin nadar bin kilaana bin huzayba bin mudrika bin ilyas bin mudar bin nizar bin maad bin adna nangu leen ñaan <laughs> baa yirim xanaa daa topp ji woon yàlla <laughs> barke yow mal jël basar seex yirim sekk dama yaakaar daa toppi woon yàlla parce que moom <laughs> ba yirim Cheikh <laughs> Yirim Cheikh Yirim barke Rasulullaay man nga kadja man nga mafé manam Cheikh Yirim sek ben trafiquant de personnalité la bo xamni ndox mu sedd moy ray teñ la manam Cheikh Yirim dafa yaakaar ni man nañu nax mais Cheikh euh, Yirim yaangi nax sa bop barke yow mal basar basare yow Cheikh Yirim sek yaangi nax sa bop manam yow da nga yaakaar sun bop ay coupe mo ci nek manam tal rew mi toj ko dikk diñu tegal Elias wa ya wa Musa wa dauda xamna ni yoy bu ko defé gux leeru pay eh papa mam buy waxul deug de da lay di nax pay la waxal yeen pay yeen mo vidéo bi pay 60 ans ak 65 ans yi nga xamni man na leena door da di nax trafiquant de personnalité la xamna ni sénégal mom bo dikke tuddu yenante rek moy manam rew mi jënd nga leen mom xamna ni sénégal ñu dunu bëgg yenante on oh, temoo le prophète barki yow ma ko sunu diggante yenentu kenn da ci xajul moo tax boo dikkee tegal gaa yi yàlla yenente alxuraan moom danaan ah bàyyil ma guux leeru sénégalais yi guux naa seen leer bàyyi yirim luppe ci fer pele luppe luppe nga luppe nga barke yow mal xuloo jël basar ndong lan lay dégloo duñu la dégloo sax ay nopp yow yaakaar nga di def nga say tooxi duuna taal réew mi ci fer pele bind sab livre bu ni fang kenn xamul livre bu lan la te livre lu noq taal réew mi ci la bokk bàyyi yirim tey nga talax laxe rakkam rakkam dikk di ma gëmloo Elias wa Yaxya wa xanaa da nga xanaa da doon def franco arabe yow France da doon jàngale France waaye yàlla xam ne moo doon jàng kii <laughs> daa jàngi woon de da ngaa nafari woon semaine bi moom ku ci dee àjjana nga jëm c'est la première fois ci histoire du ma dégg Cheikh Yirim Seck maanaam prononcé ay turu c'est la première fois kon wèr wi ngeen xam rek lama kilifa ga waxon da melni day bëgg am képp ku faatu ci wèr wi dal ak lepp lu way lijeenti day soti képp ku faatu aljana nga jëm wax deug yalla da ciy bax parfois ngeen delloo seen xel ci yalla xamni yalla rek kay yalla la ca ginnaw yalla xolal ay tiaxan la xawma ba xam deg ngeen maam déet day bax parfois Cheikh Sirim ngeen togat xalat xamni yalla mo len sak yeen yéen wàccewu leen fi seen bop xamni yalla mo len sak bind len day baax parfois nga toog ba ci yàgg fàttaliku ni waa man lan moo ma indi ci duniyaa lan moo ma indi ci àdduna yàlla moo la bind indi la ci àdduna lan moo tax mu bind ma ci indi ma ci àdduna parce que dafa am ay mission yoo xam ne dama ko war a dox mission yi nan laa ko war a doxee dama ko war a teg yoonu siraatal huda mais laa maintenant dem nga ba xam ni waaw yow jaa ngi doo a xam ni yàlla moo la sàkk bind la fi pour nga dox ay mission ci réew mi mais sa mission ak sa objectif sa ambition baaxul tanga don parmi les meilleurs journalistes du Sénégal euh, Cheikh Yirim manam da nga bok ci les meilleurs meilleurs et meilleurs encore une fois journalistes du Sénégal mais da ngeen ko yak ndax lan seen terangay bop da ngeen ko yak ndax lan seen bëgg-bëggi bop da ngeen ko yak ndax lan manam bañ ben doomu adam wala ñaari nit ngeen bañ len ci même rew jaral len du ngeen wax deug tay ya ñëwaat ñu yalla yenen ban lay deglu yalla nañu gañu bañ lay déglu yàlla nañu doon ay de l'air de servir gars nii ñu naan ñu attaché woo ceinture l'avion va décoller d'ici quelques secondes barke yow man xuloo jël basar ban lay déglu yow bàyyi yim wala ñuy gëm lii ngay wax yàlla naa doon kaala xëy ñu may kaala nii di ma yóbbu jàkka ji barke yow man xuloo jël basar yow buñ la naree déglu Cheikh Yirim ñal naa doon bët bëtóor laa la wax di xëy daan nii suba ba ngoon jot Cheikh Yirim buñ la naree déglu laax yàlla naa doon nen heure ma xëyee gars yi fett omelette ma barké yow non la mais parce que a touché trafiquant de personnalité nga <laughs> barke basar gars yi dañuy déglu bay ngagn ak ki nga xamni modi Cheikh Yirim Seck ñu déglu len attentivement ñew ci débat parce que je vais prendre mon temps basar buma kenn xëri bo jéko del balé. ku xam kukuriza sa bop kukurise ya fa jay keccax laalo kukurise ya xam barke yowmal mal xiyam bayirim, no non cheikh yirim nak barke yowmal mal basar basare non on a touché barke alquran on a touché ñun ñëpp xam nañ ni pincé tout wokora moy hymne national bu Sénégal barke yowmal mal xiyam ñun ñëpp xam nañ ni suñu devise un but un peuple une fois la yow da ngaa bok ci ñoro na xar guuy gi ci fer pele on a touché <laughs> on a touché <laughs> xam na lépp trafiquant de personnalité nga léegi dañuy déglu Cheikh Yirim ak nga xam ni mooy sunu Baye Ngañ na nga def ak coono Baye Ngañ am nga jàmm mbaa kenn yabu la première question Baye Ngañ action. wax nga ni ay diir maanaam nekkuloo fi loolu nag dafa bari ñu mu jaaxaloon parce que ay askan wi di lay gis di lay dégg ñu ci bari d'accorduñu ak yow ci say position mais ñakul am ño xamni dinañu d'accord parfois ci li nga xamni mom ngay mom ngay xalaat kon sa ce ce sa absence bobu jaaxalon nañu bari mais li tax mu gëna jaaxal nit ñi moy dafa nek ci moment politique moment bo xamni euh danaka ci histoire politique du Sénégal li ñu fi dundu jaaxal nañu ci jamono bobu ci nga genn réew mi nek bitim réew mais ci jamono bobu itam nga fi bayyi ay wax ju bari wax yu bari daal yo xamni euh bi ñu dawalee gis nañu ne li nga doon wax yëpp daanaka amewul ni nga ko waxee woon. Euh, Baye Ngagne na rek coono bàyyi ngañ am nga jàmm xam nga nag bàyyi ngañ yow sa problème mooy sa plateau neex na tu es le meilleur mais yow direct à la tàyyi nga ko direct à la tàyyi nga ko lan mooy ay ay ay li nga fi wax lépp daanaka xaaj bi demewul ni ni nga ko waxee. dama naan ko li fi wax lépp ay ay ay machange la Baye Ngagne direct à la but nag wax dëgg yàlla nag formé wul la nii de ñi ngay jàng journaliste wax dëgg yàlla waxuñu la lii direct à la maanaam amul ay bi li nga fi wax lépp demewul ni nga ko waxee déedéet li nga fi wax lépp ay këjib la xaasa ay këjib xaasa ay këjib xaasa ay nar xaasa ay fake news ku ko rése yaa xam demewul ni nga ko waxee duy wax maanaam li nga fi wax lépp ay fen la ci fer pele lu ci bari nag <laughs> lu ci bari. waaye bàyyi nga ma nga naa ma lu ci nag nee li nga fi wax lépp ay fen la li nga fi wax lépp dëgg maa nga jéggalu ci kàddu yi nag te li taal réew mi bàyyi rim mii génnu ci. sikki mom bu wex di ma saf luñu luñu doomu taal voilà li taal rew mi gennu ci li taal rew mu gennu ci bu waxe mu jënd ko si bu bes fo jaar mu wan ñu ko voilà léegi nag bàyyi euh, euh, yirim euh, baye ngañ doxalal na la baye nga doxal sax parce que yow comme ya géré doxalal wa Pape lu tax nga may provoquer oui ma Cheikh Yirim ken provoquer wu la Cheikh Yirim ken provoquer wu la lan moy sa problème lan la wax lu demewul non li nga bari na lo bëgg yow lo bëgg bàyyi jirim lo bëgg na nga def ak coono ma man la xëri sëtu koccu bi talax laxi réew meeg dajj dajj France ji mbaké ni yabula la naka cuqur cuqur yi France ji naka talax laxi France mbaké ni yabula lo bëgg yow hmm? da nga bëgg ñu tocc kasi nañ tocc kasi nañ tambuli ok bismillah bàyyi ngañ man ak yow ku ñëk tocc tojal wala mo tocc bàyyi ngañ na nga def coono tojal wala mo tocc tojal kasi wala mo tocc kasi Cheikh. yow. da nga tok ci émission. waaw ak Ndour Faye ci tv waaw nga wax ni amul kenn kuy bokk Pastef. kuy ci élection musul wax loolu. Cheikh yirim ñu toj kaas yi. nañ toj kaas yi nañ ok merci beaucoup léegi euh, dama leen faire une vidéo boo xam ni moom Cheikh Yirim ak Ndour parce que Euh, benn maanaam euh, engagement euh, ci ci langue politique maanaam bennoo xeex Baye Sonko ba maanaam bennoo xeex Pastef association bi ñaar ñi mën naa ne ñooy directeur bi Madiambal Diagne mooy adjoint bi kon léegi damay dellu ay weer ci ginnaaw xëri la sëtub kocc bi mën na kànja mën na maafe ndem mën naa ne bu leen fàtte abonné seen seen YouTube xëri pro l'officiel sëtub kocc barma bi am na solo tay aimé vidéo yi bu baakha baakha baax gaay damay talax-laxi rakkam rakam yi delloo ay werté ca mom Cheikh yirim Seck mo tok ci plateau ni li fi li yobbu Ousmane Sonko du bàyyi Bassirou Diomaye Diakhar mawo maawa euh soxna si li yobbu Sonko du fi bayyi Bassirou Diomaye ci gàttal kep ku bok ci Pastef ñu disulur ko gëw ma ne da nga mën nek candidat <laughs> billahi bay Cheikh bay Cheikh nak mi nga mel jaxal na say mbok nak bay Cheikh na def ak mané ma enfant tout ça et cetera mané ni nga mel jaxal na say mbok de. du man rek la jaxal <laughs> allahu akbar non bay Cheikh tu es talentueux mané ko ci bay Cheikh Yirim vraiment tu es talentueux non Cheikh Yirim man na kanja man na mafé ta day wax di weddi bopam manam li lañ téla a ci yow Cheikh Yirim sek ñun dañ leen a teel a àjji maanaam senegaal guux fi leeru doomu aadama wala nax nit wala waxal nit lu ni fàng ñu lay bàyyi noonu ci biir amul mag amul xale ak ku mën a doon barke yow man xuloo jël basar basaree boo toogee ci télé bu wax lu dul dëgg dañ naan la carrément papa li nga wax lu dëgg boo toogee di yàq doomu aadama boo xam ne danga nga koy yàq ndax lan kii neexuma dañ naan la carrément papa ñoo ngi tuub waaye nag tuyuma ci fair-play ku kurise yaa xam Cheikh yaa ko waxoon yow yaani ni woon li yobbu Ousmane Sonko du fi baye Bassirou Diomaye Diakhar Faye mosuma wax lol ay Cheikh yirim yow baye ma way ngay weddi yowit nak muno baye bu neel da nga mën atay attaay ngay fure lay yeer yow Cheikh yirim yow li nga fi wax lepp barke yow mal xeyam buma ko buma ci doon jaarat manam day ñaaw day ñaaw yow fi nga taxaw ni suni tribunal dañ la fenal lol lepp amna fi tribunal bi dama fenal ño xamanteni yow manam yow yaa leen wóolu yow sa jëmmi bopp yow ba teg leen fi maanaam pour ñuy dox ci àq ak yelleefu doomu aadama di say di saytu talax-laxi réew meeg ràkkam-ràkkam jeeg dajj-dajj ji maanaam ay juge nefa yu am xam-xam ay magistrat yu am xam-xam nga taxaw en flagrant délit dan maa fenal te loolu bu ko bu ko ab opposant waxoon jamonoy euh, Macky Sall ciy ŋaam lay fanaan yow boo jëndee mu mu bees moom sa problème du dem ci lenn lu dul naa taxaw nax sénégalais te ñi ngay nax ñoo la ëpp xam-xam ëpp la xel ëpp lay xalaat donte ko ñun dun ay journaliste mais nag gis nga lu yenu maanaa ñépp a ko xam gis nga wax bu feebaree nopp ya koy déglu daa war a wér cocc barke yow mal xuloo jël basar yow jàng nga am nga xam-xam waaye nag sa xam-xam da nga lal ci lu dul lu dul dëgg maanaam euh, parfois bu nee la lëg day tëx doo ko gëm ay ay noppam gudd na trop waaye dégg-déggam soxorul <laughs> mooy genre Cheikh Yérim gii lëg lëg laa la wax de moom dënn bi dënn bi dënn bi mooy yëkk ay action mais nopp yi neexul maanaam boo ko jubee nag moom dënn bi day sentir mais bu fekkee ay noppam dong la yaakaar gudd na waaye dégg-dégg ba soriwul maanaam fa may bëgg a waxee ak mooy am ay diplôme jàng bay bëgg a taxul nga am benn xam-xam bi fii ci Daara Dunia bay maanaam am na ñoo xam ni feeñu ñu télé chaque jour ma wax leen ko mosuñoo génn kenn xamu leen te mën nañ laa jaay yow Cheikh Yirim yow ak kala jàngal lekk seen njëg te ñu ngi ci réew mi kenn xamu leen. kon yow boo toogee doon benn élément boo xam ni genre benn trafiquant de personnalité nga ci biir réew mi maanaam yaakaar ne mën nga ñoo nax yow da ngay nax sa bopp yow. sa objectif ak say programme ak yoy yow bu bu jallon tay Bassirou jomay jaxal fay du dem palais ndax livre bu dul bu dem bind nga ko ci ñom ta jallul loupé parce que ça veut dire que ñun wun la manam maanaam wun la quoi dañ la laa wul légui mom moy wax di tontu bopam mom Yirim sek degg na ci mom muni pouvoir bi fi nek manam gouvernement Baye Sonko bi. cey ni bala ñoo bala ñoo bala ñoo bala ñoo jotaat ci nguur bi.

2019 à nos jours ñu ngi talax-laxi di ràkkam-ràkkami di layam-layami ci tiktok bi soxla soxlawun ku nu waxal mat nañu soxlawun ku nu waxal soxlawun ku nu defal ay baax-baax soxlawun ku nuy tàggal suñuy maam ñun mën nan ko ndax 2019 ba tey ñun ak yow ci résu sociaux yi nga ni da ngaa jàng yor say diplôme foo génne wax ñu day la jàll kon nag Baye Yérim man je sais que ni tu vas

dellul parce que nag réew mi moom bu bëggee dégg-dégg yow xanaa nga ñëwee dem wut France 24 poste waaye télé yi sax dañ laa seexlu parce que li nga fi jëfa rëy yow li fi wax barke alxuraan lu waay waxoon na ca dellu delluwaatal yow bàyyi yirim yow lu waay waxoon na ca dellu yow da nga daan bind bindal bàyyi Sonko waxoon na leen ko ku ku amoon fi tey bind bindal yéen bàyyi woon ci li ngeen nekk. ngeen xëy yéen man xawma lu tax Baye Sonko yow porte la pelante ba tey yow Baye Yirim yow ak li nga fi bindal baay Sonko lépp yow lan moo tax ba tey fanaanoo ciy ŋaam man damaa yéem yow ak ma jambal jaañ toog bind ci doomu aadama livre te mi ngi dund amoo ci moom benn ndigal loolu yoon da koy tere yow nga toog bind ci nit livre te ki ngay bind ci ki ngay bind livre mi ngi dund di noyyi laajoo ko ndigal ba xam man ngaa bind ci nit ki livre nga toog jël sa temps ak sa conscience tranquille ak sa maa tay di def la neex bind ci Ousmane Sonko livre wax ci ay fen kese moo ko Adji Sarr Madiambal def na ko fi Cheikh Yirim miit lëf la ci sàppali na moom ba ma jambal kuppee moo baatare daa bind bind te nii nii bindaat na livre ba ba naan ay ay ay Elias ak ay ay xawma Yaxya ak <laughs> Sidi Diop ak Wally kii yàpp nañu barke yow non Sénégal dafa neex est xam ngeen ne Sénégal dafa neex ba ci politique bi manam dañuy comédie quoi ñi ba ci biir langue politique dañuy fësal manam ay comédien lañu manam gis nga bayirim bu ngeen yaakaare ne man ngeen nax population bi yéen ngi nax seen bop jikko njugub na ngeen yor langaa tu saw sa bop day sa bop yaakaar ne toyal nga suuf fek sa kaw barke yowmal mal gis nga àdduna maanaam olof njaay day faral naan wala sama maam kocc ëllëg du añ du reer mais lu jara sedd la lu jara sédd la ëllëg lu jara sédd la maanaam lépp loo gis rek day jeex yàlla sax wax na ko ci alxuraan lépp loo gis day jeex lu xew day xew xewi lu bees day màgget yéen mosoo leen moom wax na ko nee na carrément man bari naay moroom ci li tax Bassirou Diomaye jaaxaar fay bokk ci élection yi ba jël réew mi loolu du man dong la jaaxal moom wax na ko loolu laa jaaxal parce que yàlla mi yàlla moo dogal loolu fii àdduna dara dara mo fii fii lan moo fi jaaxal doomu aadama amul luy jaaxle fii ku lu mbir bu xewee mbir bu xewee am jaaxal la rek saa di ko kon yow gëmoo yàlla man man xëri dara yéemu ma dara dara luqul sama bët parce que gis naa bu ne kon mbir bu xewee yow nga soge ci mu jaaxal la muy lu mën a doon dama ne muy bànneex muy musiba lu mën a xew yéem la jaaxal la toj sa bopp rek gëmoo yàlla yow yow doo doo gëmoo yàlla mën nañ laa boole ci yéefar yi parce que yàlla rek a yàlla mooy dogal lii am ak lii xew suba ak ginnaaw suba yàllaa ko xam moo koy dogal mooy def lu ko neex ci jaamam di dogal lu ko neex cib jaamam pour pourquoi paa nga doon jaamub yàlla te nanguwoo doxal boobu noonu banaan man sax li tax mu doon président li tax ak bokkam dafa maa jaaxal kon gëmoo yàlla gëmoo yàlla tey philosophiquement laa lay tontu gëmoo yàlla parce que nag yàlla suñu borom ku ko gëm ku ne daray àdduna du la yéem waaw yàlla képp ku ko gëm daray àdduna du la yéem amul lu la yéem ci kaw suuf parce que doomu aadama da ngay jël sa jëmm ji bàyyeek yàlla mu def ci yow lu ko neex nga nangu ko nag xam ni lii yàlla moo ko dogal mais le fait que nga don citoyen sénégalais wala nga don doomi adama sax banni adama nga nan li tax li am daf ma yem kon ça veut dire que yow genn nga alcorane yow yow yalla yàlla yenen te gëmatoo Jésus gëmatoo Mariama yow yow gëmo ci kenn gëmo Jean-Claude vandam gëmo Sibor parce que le fait que yalla dogali dogom dogalam nga ni man wey li daf ma jaaxal daf ma soge wa daf la soge ça veut dire kon gëmo yalla parce que ku yalla nek ci yow ngay yàllay kese daray àdduna luqiwul sa bët lépp loo gis rek da nga nan non la yalla ko dogal ni mais fallu gi basiru jomay jaxar fay fallu way daf ma jaxal daf ma yem loolu num la mana a mak mak sal firawna ko ëppoon dole firawna ko ëppoon dole de firawna na ko ëppoon dole fan la muju fan la muju daa mujj faatu yàlla jël ba kanam yàlla jox ndigal suuf ni ko jëmm ji seexlul ma ko bàyyil ma ko jox ndigal géej ni ko jëmm ji bum taq mu ko ci yow ñu suul yàlla sulli suuf sulli sànni ñu sànni géej suuf gëq loolu jaaxal la beneen histoire di la jaaxal ci kaw suuf yi daaru duniya ngeen yaakaar ne man ngeen a théoriser nit ñi ñoom daal bu ñu defee seen i tooxu dino ba pare bu ndikkee layam layami toog talax laxi ah wan nu seeni kon tok nan la wëy wa yahya wa ilyasi wa wa wa aruna wa dauda wa wa yow ya ko yeex jang alquran on a tout see xam nañ lépp mënoo ñëw tëgg wëndeel rek ñuy nax trafiquant de personnalité nga li tal réew mi do ci genn ta bis bu dee ba wuro wa dem kën waxe mak dem dañ tal yow ci kasso bi nga wara a yow Cheikh Yérim ya Cheikhul Ibrahima Baba Lamine jassi nga ne